tous su fekkee ne danga ma bëgg jot en direct nag deux bi ngay laal waaye su fekkee ne da maa bëgg bàyyil message nag su boobaa lool ngay def kon man nga ànd ak man ci 88 628 53 53 88 628 53 53 su mbokk ñëwee incha allah bi sëñ Abibu am daal di koy dalal ñu mën ko jël jokkoo ak moom kon 88 la 628 53 53. 88 628 53 53 incha allah rabi mooy bu ma jokkoo gi mbokk yi ñuy waxtaane yéen ci wàllum xam-xam muy émission xelmul asraar di fa waxtaane lépp loo xam ne rek euh, lu soxal asraar la waaye itam di ci waxtaane itam ay gént ndax mbokk yi am na si ñooñ gént gi moo leen intéressé ñoom danañ mën a jaar ci téléphone bi muy 88 628 53 53 am na si ñoo xam ne nii lañ bëgg mooy ku leen dimbale ci wàllum tabixa bi lan moo nekk tabixa bi lan moo nekk biddiw bi biddiw bi ban heure lay génn waaye itam biddiw boobu itam ban heure lay dugg incha allah bi loolu boo ci bëggee am ak leeral jaaral ci 88 628 euh, 53 53 88 628 53 53 incha allah rabbi mooy buum gi nga xam ne ni ku si jaar da ñu mën a jot jamono bii nag mu mel nii heure bi nga xam ne nii mooy 20 heures jot na ba tegal 48 ci ay simili fii si studio Soxna Anta Ndiaye rajo bi itam mu ngi fii ci euh, côté Pencum Paleen maanaam en face Pencum Paleen boo jeexalee kër si Seex ndigal gi jëm fii nga xam ne ni mooy ancien garage soo jóg itam ancien garage bala nga àgg ci kër si Seex ndigal gi rek euh, mu ngi message bi sa loxo ndajoor ngeen mën a ànd yi ñun itam ci wàllum publicité ci wàllum communiqué ak lépp loo xam ne ni mbokk sama daan la soxal incha allah bi soo ñëwee itam ñu man la ko yaatale bu baax a baax mbokk yi kon yoon waa nga noonu muy 88 la 628 53 53 88 628 53 53 mu mel ni am na ñaari laaj yoo xam ne nii eh, teewoon na fi xam naa moom la ñuy jiital ngir nag door a yaatal bu baax a baax li nga xam ne nii moom la ñu war a eh, waxtaane ñaari laaj yooya li ci jiitu mooy ci nee na Seydina Ousmane eh, ñàkk am doom lu koy waral tabarkàlla laaj na laaj bu am solo muy ñàkk am doom waaye itam laaj boo xam ne ni bu yaatu ginnaaw la boo xam ne ni bari na lu mu làmboo ndax buñ ne ñàkk am doom lan mooy sabab bi kii amut doom lan moo tax amu doom fiñ mën a jël waxtaan wi nag teg ko ndax day mel ni ki laaj aji aji aji sëy la maanaam benn muy góor walla muy jigéen su fekkee ne góor la ci góor gi mook digganteem ak soxnaam bu fekkee ne doom ci boppam sosu si lan mooy sabab ba eh, am na ci ñoo xam ne nii bu fekkee ci góor gi la mën na nekk moom ci boppam moom ay jafe-jafe maanaam wallax njaano ci boppam moo duyul loolu nag danaa ci indi ak leeral bu baax waaye itam di leen ci bàyyiloo xel ne képp koo xam ne nii lu mel noonu dal na la naka nga war a mën a def su fekkee ne góor gi la la ma lay njëkk ko si mooy boo nekkee ak sa soxna saa yu ngeen jaxasoo ba noppi xam naa sama technicien mu may ma tuuti retour rek ndax bu téléphone bi yëgloo ñu mën a ànd ak moom incha allah euh, su fekkee ne ku góor ki la liñ koy digal la ci jiitu mooy saa yu jaxasoo ak soxnaam ba noppi na bàyyi xel ndox ma nga xam ne ni mooy jógee ci góor ki te war a dem ci jigéen ki muy war a dem ci soxna si kon loolu bu fekkee na ndox mooma wallax njaan yi nga xam ne nii moom la war a am amu ko su boobaa nag pour ñu am doom dana jafe ndax wallax njaari ci boppam mu matul euh, ba ca dolleeku itam mooy su fekkee itam wallax njaan wooyo euh, dafa manqué dana yéex am doom ndax problème bi ci ku góor gi la waaye ku góor gi itam bu fekkee dafa am ndoxum siti moo xam ne ne dafa dem ba lakk lakk la nga xam ne ni mooy ndoxam mën nga xam ne ndoxam mën dafa woyof bu fekkee ne daf woyof loolu itam dana waral lu mel ni ñuy xam doom xañ na sax buñ ci xuusee dëgg dëgg mën na nekk émission bi spéciale boo xam ne ni moom rek la ñuy waxtaanee waaye ñu xam ne loolu dana ko euh, euh, sabab su fekkee itam ba léegi ci ku góor ki itam buy nekkee ak soxnaam te euh, soxna soosa itam nekk nga xaw a des loolu itam dana dana ko sabab maanaam ñu baal ma bu fekkee ne soxna ci boppam dafa am li ñuy wax. ndoxum siti euh, ndoxam siti mooma su fekkee ne ñaari day sabablu maanaam su euh, ndoxam siti mooma la ma bëgg wax mooy bu fekkee day tàngal ab biiram su fekkee na day tàngal ab biiram nga xam ne biir ba day tàng ba nga xam ne ni saa yu jaxasoo ak borom këram ba noppi ndox moomu day génnaat loolu tam doom dana ca jafe kon lu mel ni ndoxam siti ci gàttal dana sabab yéex a am doom su fekkee ne ku jigéen ngi itam ba léegi comme niñ ko waxee woon su amee lu mel ni farara boo xam ne nii da koy soxore mën naa ànd ak borom këram jaxasu ba pare ndox moomu di génnaat ndax rab ba ñaar ñu am ak doom kon loolu itam dana ko waral muy ñàkk am doom euh, waaye itam ba léegi su fekkee ne soxna si boppam dafa def li ñuy wax planique planique bu ko defee moom itam loolu dana waral euh, doom xaw a jafe ci seen diggante ñoom ñaar su fekkee itam ba léegi euh, soxna si boppam euh, dafa dafa dafa dafa dafa am tawati lu mel ni fibram man naa sabab am doom jafe ca kon lii ay tomb la yoo xam ne nii bokk na ci li sabab ñàkk am doom su boobaa nag ci jumtukaay su ko neexee mën naa dem kër docteur ñoo xoolal ko lan mooy sabab bi su ko neexee tam mën naa yëgluwaat ci 88 628 53 53 su boobaa ñaar lañu soxla mooy turam ak turu ku góor ki waaw turam ak ku góor ki tur ci sax bu ci mënee ànd dana amati solo su boobaa dana tax seet gën a gën a def li ñuy wax euh, mat incha allahu rabbi waaye boobaa mën naa jaar ci 88. 628 53 53 88 628 53 53 xam naa sax day mel ni ne euh, tomb boobu tey ñëwul bañ man caa euh, gën a xuusaat bu baax waaye incha allah rabbi euh, beneen yoon danañ ko indiwaale incha allah buy tomb bi nga xam ne ni ku bëgg a xool lan moo tee nga am doom waaye teewul rek ne mën ngeen a woote ci 88 628 53 53 88. 628 53 53 ngir itam yow mi nga xam ni nii da ngaa bëgg def déplacement jóge ci barab dem ci beneen barab moo xam tukki la moo xam tuxu la wala yónne incha allah kon ñu bàyyi xel bu baax a baax laaj boobu day mel ni andi nañ ci ak tontu ñu jàll ci beneen laaj euh, beneen laaj bi kee nee na Seydina Ousmane damay laaj lan moo waral euh, di force yi bëri di force yi maanaam sëy yi daal. yi nga xam ne day tas lan moo waral mu bari waaye loolu euh, day am ci ñaari mbir day am ñaari mbir benn bi mën naa nekk ci góor ki walla sax day nekk ci sabab yu bëri laa bëgg wax benn bi mën naa nekk ku góor ki ku góor ki mën naa nekk ci moom waaye mën naa nekk ci ku jigéen ki mën naa nekk itam ci baay ku góor ki mën naa nekk ci yaay ku jigéen ki maanaam ba léegi itam mën naa nekk ci yaay ku góor gi mën naa nekk ci baay ku góor gi mën naa nekk ci yaay ku góor ku jigéen gi mën naa nekk ci bàyyi ku jigéen gi waaye yéemu ca mën naa nekk ci bàjjini sax ku jigéen ki wala mu nekk ci nijaay ku jigéen ki wala ba léegi mu nekk ci nijaay ku góor ki wala mu nekk ci bàjjini ku góor ki wala mu nekk rakki ku góor ki rakk ji ku góor ki ne dafa yaatu ginnaaw man na nekk góor mën na nekk jigéen wala mu nekkee ci mag yi ba léegi ku góor ki wala magi ku góor ki su waxee magi ku góor ki ak mag yi ku góor ki dafa am ak wuute magi ku góor ki kenn la mag ña mooy ñi nga xam ne nii ñooy mag ci ku góor ki loolu tamit bàyyi xel kon xam naa. 88 euh, la 628 53 53 88 628 53 53 incha allah ma bàyyi sama technicien euh, may ma tuuti euh, son ànd ak image incha allah bi ñu ñëw nag gën a xóotalaat bu baax a baax ci waxtaan wi ndax lii. ñuy waxtaanee jar na yaatal bu baax a baax ba mbokki incha allah bi gën cee gindeeku gën ci mën a dooleekuwaat ci 88 628 53 53 kon incha allah bi sama technicien nga am noo def ñu ñëw am nuñ defaat àndaat ak mbokk yi ci 88 628 53 53 astaghfirullah astaghfirullah safirullah alazim safirullah alazim tuub nanu lan daa defi ko te muy lu njur belewu te xarnu bi xéewal yi daf daa walwal yi ba ci nun di kel moo tax mu jug di pel-pel bi geesul xarnu bi xéewal yi daf gaawala nga wax seen nga wute nga ak xamu xurëg dundëg seyaan sam ndoxa mandal xarnu bi wàcc nga yow la def nga ko jox ku mata jox daawoonu nax daawoonu ñaax seddoon nga mboolem xarnu bi daawoonu nax daawoonu ñaax nga mboolem xarnu bi daawoonu naax daawoonu ñaax nga mboolem xarnu bi gàncax gu ndaw gi weddatul mag ñi nga yar kenn wuddatul moo tax mën naa la suuxatal njëmbat li waan ci xarnu bi njëmbat li mooy gaa yi dikkoon daaw ci xeewal yi fi woon tey ñi ngi def ya ñu baan. macha allah jërëjëf. si woyofal wala wolofal bu am solo boobu kon euh, laaj yooyu laaj yu am solo la comme nag niñ tonto beneen bi noonu la ñëwee incha allah ba léegi ci beneen bi waaye ngeen mën a ànd ñun ci 88 628 53 53 88 628 53 53 ba léegi itam mën ngeen a ànd ñun ci youtube bi yéen ñi fi nekk man di ñu seetaan en direct ci 88 628 53 53 mooy buuma mag yéen ñi nga xam ne yéen ci bitim réew ba léegi ma ngeen jaar foofu xam naa mbokk asalaamaaleykum ku baax ki ñoo lay ziara euh, mu mel ni am na ñu yëglu ci beneen boor ba waaye rek euh, man ngeen jaar ci 88 628 53 53 di nuyu ak ziara bu baax sëñ Babacar borom émission bu am solo bi nga xam ne tous les 15 jours am. émission boobu nag mënu ma ko wax ci tubaab waaye bu dee ci olof mooy ki nga xam ne ni dafa nekk ci ab goxam maanaam moom lan la fa jariñ waa gox booba <laughs> boo ko defee yéen ñi dégg tubaab taarkàlla muy émission ba am solo boo xam ne yéen itam da ngeen mën njëw ñu ubbil leen buntu yi ngeen ci ànd ak Babacar Diagne tous les 15 jours fii ci rajo télévision Assalaamy FM ci 99 point 0 ba léegi mbokk mu mel ni kon laaj bi nga xam ne nii mbokk mi doon na ko laaj 99 point 0. mbokk mi ngi ñu mbokk asalaamaaleykum euh, kooku accès waaye bu accès incha allah ñu ànd ak moom ci 88 628 53 53 88 628 53 53 asalaamaaleykum euh, accès gul ba léegi mën ngeen na ñun ci 88 628 53 53 88 628 53 53 mooy yoon wi nga xam ne ni ko si jaar boo ñëwee incha allah bi da nga jot mbokk asalaamaaleykum. ku baax euh, mu mel ni ak segul waaye bu ñëwaatee rek 88 la 628 53 53 88 628 53 53 mooy buumu jokkoo gi nga xam ne nii rek kenn ku ci ne mën nga caa jaar incha allah rabbi ngir boo ñëwee nga jokkoo ak sama mbokk sa xarit Seydina Ousmane bu Serigne Saliou waram cabine médicale xel kum xewal fii ci rajo Assalaamy FM ci 99.0 mbokk mi mu ne damay laaj sëy yi nga xam ne ni day faral di tas lan moo ko sabab. comme ni ma la ko waxee woon nag ci bànqaas yi boote ci gannaaw ni ma la ko waxee ne la man naa nekk ci gàttal ci mbokki góor ki mën naa nekk ci mbokki ku jigéen ki mën naa nekk itam ci ki nga xam ne ni mooy ku góor ki mën naa nekk ci soxna si waaye itam ñoo xam ne ba léegi sëy yi nga xam ne ni mi ngi tas ba léegi yoo xam ne ni bëri na ko lenn mën na ko àll muy li ñu wax mal communication mal communication boobu nag ba léegi mën naa nekkaat ci soxna si waaye mën naa nekkaat ci boroom këram waaye ñu bàyyi xel ne sëy communication dafa bokk ci li ko lal donte yàqkat itam am na waaye euh, lu am solo loo xam ne ni rek euh, bu ci bokk yi bàyyi xel danañ ci mën a doxali nga xam ne mooy séedab sëy barakalaa jërëjëf sëñ Abibou Thiam ci liggéey bu am solo boobu nga xam ne mu ngi koy jàllale tabarkaala kon su fekkee ne mbokk sama yow mi nga xam ne ni yaa jógee sa kër ndey ak sa kër baay dem ci kër ndey yi jàmbur ak kër bàyyi jàmbur nga dem ca wala ñu demal la ca nga gis soxna si ne dama koo bëgg soxna soxna soo sa nangu walla ay mbokkam nangu ñu proposé la ko ngeen too waxtaan ba ngeen juboo ci kàddu nga war koo takk mu nekk soxna gis nga foofa dana jël dana jël wallahi mën naa jël émission ba mu jeex parce que man man sama jëmm ngëm-ngëm bi ma am mooy euh, lan moo waral tey ci misaal euh, ma gis euh, doomi bàyyi fàllu gala silla bëgg ko dem ñaani ñu ma koy maye bañ ma koy maye may yebal sama mbokki bopp yebal ñoom sañ sëñ Abibu Caam yebal ñoom sëñ Babacar yebal ñoom sëñ euh, Muntaxa Ba yebal sëñ zann bi yaay yebal yebal yebal ñu ñëpp ñu dem teew ci sëy ba ñu ne ah Seydina Ousmane kat moom lañu ñu may diw sàngam doomi diw sàngam ak diw sàngam maanaam nañ baaxoo maye ab sëy ñu jaar foofu léegi ëllëg ci biir sëy ba am ay banga banga ndaw si jógee sama kër dellu kër baayam lan moo tee man man man damay damay damay questionné lan moo tee yéen ñi nga xam ne ni ay seede ngeen woon ci sëy ba dangeen ngeen a war a sedd na sëy bi am na rek yéen seede ngeen jeex na jeex na déedéet problème yi am ci sëy bi yéen da ngeen ci am wàll yéen yéen mbooleem ku teewoon ci sëy ba ba ñuy fas sëy booba 99 war ngaa lijjanti problème yi ndax ci man la wala ci soxna si ñu may la. Salam FM 99. mbokk mi ngi yëg lu mbokk asalaamaaleykum allo euh, allo. Euh, mel ni accès wulaay ba accès ñu jël ko ci 88 628 53 53 88 la 628 53 53.

ci youtube bi wala ci kaabalu réseau yi ba léegi mën ngaa jaar foofu ci 88 628 53 53 incha allah rabbi boo ñëwee nga ànd ak sa mbokk saxare Seydina Ousmane euh, même lii ñuy waxtaanee problème mu sëy sax bu la neexee mën nga si ñëw bu fekkee ne yow da nga am problème nga woote ba léegi ñu jéem laa teg ci yoon wax ne boo si jaaree yàlla sama borom bi subhanahu wa taala bi mën na laa dimbale ba sëy booba ba nga ba nga ci na doñ am nañ problème mu dem seen kër euh, benn man ñi nga xam ne ni man maa leen yebaloon ñu dem teewal ma ci sëy ba lan moo ba bañ yëgee ne yëf yi am na problème ñu kër seen téléphone woo ma laaj ma ne man kat damaa dégg ne ndaw sañ la mayoon kat dellu na kër baayam lan mooy sabab bi su ko defee ma ne ko lii ak lii mooy sabab bi su fekkee ci man la ñu ne ma nag ñu ngi lay ñaan nga bàyyi lépp la jàppoon dañoo bëgg jiliwaat ndaw sa indi ko waaw ndaw sa andi ko su boobaa itam na nga lay ñaan nga muñal ko ndax jigéen matul bu matoon doo ko jilee kër ndeyam ak kër baayam maanaam wax ak man ca ak dal ci gàttal fexe ba andiwaan ma ba sama xel sama tension wàccaat su boobaa ñoom ñu dem waxtaan ak ndaw sa andi ko su leen neexee ba léegi ci xel mu rafet mën nañoo lijjanti ba xam lan mooy problème bi su fekkee ci man la ñu ne ma ah yow de lu wax lenn lu dul ñu ngi jëlee soxna sa waaye buñ ñëwee nga téye soxna si ndax dafa am ci ci ci ci waxeen ci ñaari waxin am na koo xam ne tey rek naan ko du ma la du ma la ñaan dara waaye soxla si danaa ko jël te bu ñëwee da ko téye kon kooka buy wax ak yow noonu day da xam ne wax ji muy wax am na fu mu ko teg mais ki la wax ne maa ngi lay ñaan ke lépp loo jàppoon nga bàyyee ko te ko ndax jigéen des koy muñal su matoon loo ko jëlee kër ndayam ak baayam andi ko muy sëy si ne góor ga fa nekk mu gën a tuuti soo si bëggoon a jot tey du sotti. waxtaan yow andiwaat la gis nga problème bu amee saytaan day taxaw dal di merloo ko góor ki waxal nangam waxal nangam bëgg muy wax wax joo xam ne ni su ëllëgee soxna si bu ko xalaatee rek xolam tàng du bëgg déew si walla ku jigéen ko noonu lan moo tee mbokki ku jigéen ki ñoom lijjanti problème boobu lan mooy problème bi ci ndaw si la walla waaye lu jiit loolu lépp itam yow mi nga xam ne ne yaa mayoon sa doom ci farti si yàlla ak sunna si Muhammad lan moo tee nga lijjanti problème bi lan moo tee nga teg sa doom ne ko dama laa sëyloo demal nga sëyi gis nga léegi la waaye mag ña dañ daa def ne buñ musaana mayee seen doom su amee problème ñëw fi bu xëyee ñëw fi du fi añee danaan ko solaatal say daal nga delloo xaw ma fan waaye du fii fi amoo fi dara fa ngay sëy fa nga dëkk nit ki fa nga nekk fa ngay amee problème te muy dëgg nit ki fa mu nekk fa lay mais foo nekk du problème kon rikk waaye nañu bàyyi raaya raayal gi tey waxante dëgg euh, bu mu jokkoo gi mooy 88 la 628 53 53 88 628 53 53 88 628 53 53 mooy bu mu jokkoo gi euh, soo fekkee ne loolu am na sëy ba mën na dox mën na aw yoon da gis koo xam ne day yëpp li ñuy wax doomam pour mu war a sëy lan la koy wax dóor luuma ko dama ko téeroo su ma nee téye na téye su mëntu téye na ma delloo loolu lu fii gi nañ koy yebee jigéen ah du ma wax ne du toog de waaye niwaa na nga am ñoo koy yebee ñu dem di toog ndax lan leen waxoon la bàyyi xel yëpp dafa am solo lan nga koy yebee bu àgg tout le temps war na di ko bàyyi xel olof Njaay day faral di wax naan xoddale ko ci bala ngay lakkale maanaam nit ki doo bàyyi ba mbir am da nga door a wax waaye da war a wax avant dara di am loolu kon lu mat a bàyyi xel la euh, su fekkee ne loolu am na sëy ba mën naa jàkk ndax alxuraan sax day wax naan problème mu sëy boo amee ña jóg di def dem di defari su sëy ba jagoor ci ñoom la ndax bu ñu bëggee mu jàkk danañ fay wax wax joo xam ne ni dañ leen delluwaat loola léegi léeg nag am ñu dëgër bopp ñoo xam ne ni seen ak dëgër bopp wax leen dara bañ delluwaat moom jafe na ba àgg ci lool waaye xale kulliyaal muntu ñàkk ak defar ak defar mënut ñàkk. danaa la jox benn misaal wala danaa leen jox benn misaal. dañoo wax ne dafa am benn mbokk moo xam ne nii dafa yor aw fasam dem ba jamono ñëw mu bëgg koo jaay dem ci marché ba. Euh, mbokk yi seen émission xel moo asrar 88 la 628 53 53. 88 628 53 53 yow mi bëgg ku la seetaan incha allah rabbi wala nga am ak gént goo xam ne ni dalaa jaaxal nga bëgg caa gindeeku wala nga bëgg xam sarax yi nga xam ne nii moo ci war mën nga jaar ci 88 628 53 53 88 628 53 53 incha allah rabbi soo ñëwee nga jokkoo sa mbokk sa xarit Seydina Ousmane Sorong bu Serigne Saliou ñu mën la caa gindi ba ci ay sarax itam ñu leeral la sarax yooyu. Euh, ñu fàttale na bunis du woote bu ñaa du woote waaye nag boo amee ci kër crédit rek lu mu néew néew insha allah rabbi da nga mën a ànd ak man ci bu mag jokkoo gi ci 88 628 53 53 tey jii ci altine ji waaye tam yeneen jotaay dana la ko tegaat incha allah xam naa ñu ngi xool itam lu mel ni bëcc gi yenn bis yoo xam ne ni itam danañ gën a yaatal bu baax a baax liggéey bi ndax am na ñoo xam ne ni danañ soxla heure yooyu itam ñu bàyyi xel baax kon 88 la 628 53 53 waaye mbokk bul jàpp ne mukk dama sànni sab laaj yow mi doon laaj problème mu sëy dama indi yoon wi ngir am lu ma la leeralal kon sama technicien nga mayaan ma incha allah bi tuuti son rek ñu ñëw àndaat mbokk yi bu baax a baax ci yaatal jant la moom faw xana leeram gi na xarnu bi sëñ Bamba yaa dig man bu waar tabbi dootu réer yaay jant say gaaya di weer léeri gëndoo ci xarnu bi nun soobu nan la jàllenu waay Mbàkke bul dem bayinu nun soobu nan la jàllenu waay Mbàkke bul dem bayinu nun soobu nan la jalle nu waay Mbàkke waay Mbàkke waay Mbàkke bul dem bayinu yow mal xiyaam yow baale te bu mbooleem xanu bi Cheikh Bamba yaay ngën ji kenoo sa jën yi doy na ni dono soo doon fetal jëkkënu say bala mokkal xarnu bi billaahi wéeru nañ ci mooy nan ci lu mën a xew ngir urwatul wusxaa du sew deesu ko dog ci xarnu bi sëñ Bamba yaay ba léegi mbokk yi bu mag jokkoo rek mooy 88 628 53 53 88 628 53 53 88 628 53 53 mooy buum gu gi xam ne ni ku jaar bu soobee yàlla sunu borom bi subhaanahu wa taala dag ñu mën jot ci rajo télévision Assalaamy FM ci 99 point 0 yow mi nga xam ne nii da ngaa bëgg ku la firi sa gént da nga am ak gént gént googu jaaxal la baag ci lool wala da ngaa bëgg ku la xool da ngaa bëgg dugg ci mbiram na insha allah rabbi ba léegi loolu lu mën a nekk la kon 88 la 628 53 53 88 628 53 53 88 628 53 53 mooy bu mu jokkoo gi su ko defee mbokk mu ci jaar bu soobee yàlla sunu borom bi subhanahu wa taala boo ñëwee danañ mën déggante ak yow ñu bàyyi xel bu baax a baax ne sëy dafa am lu ko lal la ko lal nag wóoruñ di ko sàgganee ndax euh, lépp loo sàgganee rek day mel ni ñàkk ko wala xam ko te amoo ko moo gën noonu am ko te xamoo ko ma waral ak defar muntu ñàkk comme li ma loolu la jox exemple boobu mën na la am na ci mbokk moo xam ne nii wax ne ne dafa yoro wenoo fas yor ko ba jimmi jamono mu bëgg tàggoo ak fas woowa jël fas wa yóbbu ko ca marché ba muy li ñuy wax jaba ne da koy jaay àgg dugg ci marché ba rek suba teel dajee ak kenn mu ne ko fas wi lay jaar mu ne ko waaw mu ne ko ñaata ci misaal mu ne ko fas wi quatre cent mille lay jar su fas wi waroon na jar trois cent mille wala mu war a jar trois cent vingt cinq waa ji ne ko fay naa la deux cent mille mu ne ko kon de ama koo fas ndax kon du ma la jaay kayitam ne ko kon de mu seete feneen dal di dem dugg ci marché ba yendoo wër ba ngoon jot moom muntu fexe ba am fas waaye itam ka fas woo di jaay wër ba ngoon jot moom itam muntu jaay fas wa fekk na ba muy wax loola am na genn góor guñ dajeel ca bunt ba mu dégg prix yi doon wax ba kenn ko fas wi ñaata mënu ko 400000 kenn ko fay naa la 200000 waxaaliw ñu daal di dem bañ demee ba waxtoo ngoon bañ dajewaatee góor ga wax borom fas wa ne ko yow sa fas wi jaragut ba léegi. mu ne ko nu muy jaree te gisuma koy defar <laughs> dégg ngeen wax boobu mu ne ko nu muy jaree te gisuma kuy defar waaw nu muy jaree te gisuma koy defar ne gees yem ci ki fayoon deux cent mille yi ne ko ah yow ama ko fas ba léegi mu ne ko nu may amee fas te gisuma koy defar <laughs> mbokk est-ce que dégg ngeen wax bi waaw loolu lépp boo gisee ma indi ko mooy defar ga baatu defar ba moo ma ci intéressé waaw nee na ko yow amagoo fas soo ba léegi mu ne ko nan lay amee fas te gisuma koy defar waaye lam njëkkoon a wax kee ne ko yow jaayee goo sa ba léegi mu ne ko naka laay jaayee sama fas wi te gisuma koy defar waaw naka laay jaayee sama fas wi te gisuma koy defar kee mu ne ko mu ne gees yam ci ma ne ko yow ko fas ba léegi mu ne ko naka laay amee fas te gisoo gu koy defar waaye mbokk yi li fiyeeg defar dafay nar a jóg pour nit yor soxnaam ñoom ay jafe-jafe àndaat dana jafe. juróom-ñeent fukk tombul dara. muntu ñàkk xale ku liyaal am ñuy defar ndax yàlla saa baram saa wa taala dañ koy tooñ ba di ko jéggal mu ñuy jéggal kon rikk waaye nañu doxal yërmaande ci ñi ñuy yor. ba léegi bu mag jokkoo gi mooy 88 628 53 53 88 628 53 53 88 628 53 53 mooy bu mag jokkoo gi nga xam ne nii ku ci jaar bu soobee sunu borom subhaanahu wa taala ñu mën na jot. ñu mën laa xoolal su fekkee da bëgg ku la firil sa gént des na la mën a firil sa gént su fekkee ne da ngaa bëgg ku la xoolal mbir mooy waaj a dugg mbiram soxna si ndax soxna si gën ci yow wala gënul ci yow ndax itam yow liggéey bii nga xam ne nii kat yaa ngi ci waaye boobaak léegi mënoo fexe ba gis ci sa bopp itam nag ngay def ba mën caa gis sa bopp mbokk yi ñu xam ne doomu aadama dafa am ci loo xam ne mën na koo téye lu mel ni rab mën na koo téye lu mel ni cat mën na koo téye lu mel ni def-def bu bàyyi ko ci doomu aadama mën na koo téye def-def boobu nag moo xam làmmiñ la walla bët wala lu xalima def walla lu kurus def moo tax xale ku laal yooyu lu mat a bàyyi xel la kon ma ñëwaat ci problème mu sëy yi nga xam ne ne mi ngi tas ci biir kër gi te mbokk mi doon ko laaj sëy yi tas ku góor ki mën na yor. ñu laaj ko nangutu joxe ñu laajee ko nangutu joxe soxna sa mer ne ko nag du ma fi toog ndax mënuma nekkal koo xam ne nii da ngay am soxla di ko laaj mu war laa fayal mu war laa fajal sa soxla te du la fajal sa soxla. jaajëf man mënuma nekkal koo xam ne nii du la sàngal sutura. loo def lu néew néew loo xaw a jàdd waxuma loo jàdd de xam nga jàdd dafa am ak xaw jàdd loo xaw a jàdd lu néew néew rek mu dal di dal sa kaw nga xam ne su boobaa du la mu ñal dara te yàlla nee na inna allaha maa sabirina maa ngi ànd ak way muñ kat yi ñi nga xam ne ni ñoom dañoo mën a muñ dañoo nangoo muñ maa ngi ànd ak ñoom kon yow mbokk sama lan moo tee nga jéema bokk ci ñooñ jéema la bokk ci ñooña ci muñkat yi ndax muñ lu am solo la baatab sabra foo ko dégg rek dafa am lu ko tax a jóg waaye su fekkee ne yow soxna si nekk ci kër gi ki la tànn andi la fa romb ay kër yu bëree bëri ñëw ba ca kër ga romb fa leneeni soxna yeneen i soxna wala mu fekk la fa yow dong lu mu ci mënta doon suwaa la nga nangul ko ko nga ñëw ba ca kër ga nga bëgg andi tànki bukki loolu day bokkul ci ngor rekk waay comme mooy indi ci kër ga lam lay sant te mu méngoo ak la yàlla di dégle dee ko def man nag sama problème lenn la man man man Seydina Ousmane mi wax ak waaw lan mooy sama problème mooy bëriwaana koo xam ne nii dangay gis ab sëyam day am problème lal la dangay dégg mu naan li mu ko digal du ko def la ko neexee la xam dama ne ko bul dem ca xew mu dem ca wala dama ne ko toggal nangam toggut loola mu toggal la ko neex waaye néewaana ko naan sama soxna si dama ne ko deel julli nangatu julli na nag ñàkk nangoo julli moo tax maag moom ñu am problème wala nga ne ko ñàkk sol lu jot moo tax mag moom ñu am problème waaw moom daal la waxoon ne ma xottel ko xotti lu ma ko moo tax ñu am problème dama ne ko bul dóor sama doom ji mu dóor ko lii moo tax ñu am problème waaye jullil defal li la yàlla sa baram subhanahu wa taala dama ko koo digal ba sonn nu nga koo def lii mooy suñu problème man nag mënuma ànd ak koo xam ne nii nangu te jëfee ndigal yàlla yi waxuma ne amut de waaye néewoon na luñ koy gis yéen a kon nañuy muñalante ndax sëy man di continuer diggante daaw ak ren soo xooloon li ci tas ci ay sëy kenn xamul nu mu waaye boo xooloon itam problème yi am ci sëy yi kenn xamul nu mu nañu doole muñalante di waxtaan ak soxna yi waaye di waxtaan yi itam ak góor ñi yor soxna yi tey ñi pression bi mbokk yi eh, dafa am ci loo xam ne ni moo gën a gaaw ci rey góor waaw rey ak saayir nag laa wax wu ma rey ak baatin mooy sëñ Babacar Diagne nekk ak soxnaam eh, guddi joon ñuy waxtaan ba waxtaan lu neex lool soxna si ne ko waaye yow ana nag ma la ma la waxoon foo ci toll lu tee nga defal ma ko foo ci tollu lu tee nga defal ma ko fekk na benn som boo xam ne nii sëñ Babacar Diagne jot na ko te moom dafa war a jaar ci ay loxoom jàll soxna si gis message booba jàpp ne kii am na waaye da koo nangu defal waaw walla mu wax ko wax bu sew xam nga rajo télévision ci leen am na moo yoo xam ne mënu su ko wax <laughs> waaye junj doy na borom wax xel. yéen a ngi déglu. waaw yow xanaa wax rek ngay def yow doo jëf yow doo jëf kat cëm yow day diw sàng mi ci kër gi sax moo la tane gis nga mbokk soxna dee la moytu baat boobu. di wax sa borom kër naan ko cëm yow de diw sàngam mi ci kër gi rek moo la tane wala diw sàngam mi ci koñ bi moo la tane wala diw sàngam moo la tane diw sàngam moo loolu day rey góor dafa am ci baat boo xam ne saa yu ko waxee sa boroom kër saa yu jàkkarloo ak yow baat booba du dañ mukk ci am xelam euh, rawatina ki jóg di liggéey dem wuti ñëw laajoo ko nu surr bi def nu mars bi def ndax neex na wala neexut mbaa tey alhamdulilah lépp tawféex waaye lan ngay def facture courant bi ñëw na woo naa la ba sonn xaw ma foo sànn sa téléphone bi courant bi jeex bu yàgg ah am na ci yooyu ko wax il faut nga ah sama nijaay Euh, courant bi daa mel ni mat na bëggoon naa laa woo sax waaye nag damaa xamatoon ci loo ne te bëgguma laa déranger ndeysaan wax ko wax bu dal bu fekkoon dafa xëy dëgg ba sax métti ci moom na nga ko waxee man na tax loolu du ko déranger ah waaye mu ñëw mayee goo ko ndox naan ko diw sàngam ni ñëw na fi doon na fayeeku ab bor <laughs> sëñ bi gis nga nit dees koy yar ci communication juróom-ñeent fukk ak ñeent yu tombul dara fexe ba na me waxee ak bërëm këram am sens trop juróom-ñeent tombul dara waaye itam mu fexe ba na waxee ak soxnaam am sens waaye mu fexe na muy waxee ak kilifaam am sens sa bërëm kër xëy na ma ngay génn kër ga di wuti am na ku fi ñëw di wut si sa borom kër jox la wennaw ñaat téeméer ne la taykat lii fi ne li jëntil dolli ba ma ñëw su ma ñëwee danaa la jox nga dem fay borom bitig ba yow sa borom kër génn keneen di wut nga dem ab ba téléphone di ko naa ko am na ku fi ñëwoon doon sàkk si ndimbal waaye sa borom kër lim la jox ma tuddi nga kay woo naan ko am na ko fi ñëw di sàkku ndimbal yow kay xoolal noo doxee ak moom nu rafet noo xam ne nii alhamdulilah man nga koo layal ci layoo woo xam ne nii moom kat du ci am kers wala yow sa jëmm bu fekkee ne sa borom kër sëpp na saako ceeb waaye lam la waroon a jox nga dem duggee matul nga dugg tibb saako ceeb ba ñëw jox ko te yàlla rekk tax bañ saa séntu leneen ndax nag ki amul dana bëgg koo dimbale te ñu bëri dañoo jàpp laaj dafa metti laaj metti na bàgg ci lool wala joxe métti na bàgg ci lool waaye laaj moo ko gën a métti ki jóg di laaj bu sañoon du laaj day bokk ci ñay joxe ko loolu lañ ko bàyyi xel nañu fexe ba ñu delluwaat ci laaju sëy bi tas yi lan moo waral mu bari 88 la 628 53 53 euh, 88 628 53 53 88 628 53 53 seen émission Hilmul Asrar ñoo ci waxtaanee lépp lu soxal asrar waaye buñ ne asrar rek dugg ci asrar da ci waxtaan am na ci ñoom ña ngay am ay problème yoo xam ne nii danañ bëgg ko ci waxtaan ak ñoom man leen caa dimbale man leen caa gide loolu tam ñu bàyyi ko xel bu baax a baax kon ñu continuer ci téléphone bi ci 88 628 53 53 88 628 53 53 88 628 53 53 incha allah sama technicien nga sansel ma tuuti image rek bàyyi suma bi mu continuer incha allah bi ma defar tuuti li ngay jàkkaar lool waaw man nga defaral image bi rek bàyyi son bi mu continuer incha allah rabbi ñu continuer waxtaan yéen ci 88 628 53 53 su ko defee mbokk yi nga xam ne ni ñoo bëgg firlu seen gént am nañ gént gént googu yàgg na ak ñoom mën nañoo jaar ci 88 628 53 53 incha allah bu ñëwee ma mën leen a seetal su fekkee itam lu jëm ci wàllum firi géntal la ak la ci aju ba léegi incha allah rabbi su ñëwee danañ mën a ànd ak ñun ci wàllum téléphone bi ci 88 628 53 53 88 628 53 53 88 628 53 53 mbokk sama di émission bi direct la tey ji ci altine ji dëppoo ak ñaar fukki fan ak ñeent ci mois de juin kon incha allah maa ngi am ci téléphone bi ci 88 628 53 53 88 628 53 53 ku ñëw rek mbokk yi incha allah rabbi ñu mën a ànd ay yow seetal la su fekkee itam da am ay gént yoo xam ne nii da ngaa bëgg ku la ca dimbale ba léegi mën na nekk incha allah rabbi jubu mu jokko gi 88 la. vingt 628 53 53 88 la 628 53 53 bu ngeen ci ñëwee dañ leen mën a dimbale waaye mbokk yi euh, laaj boobu mbokk mi laajoon day laaj la bu am solo boo xam ne nii mbokk yi war nañ cee war xel bu baax a baax ndax day tegtale rek ne jafe-jafe yi bëri na rawatina bu nit demee ba jël téléphone am di woote di laaj lu ni mel kon ñu bàyyi xel ne euh, ndimbal daal baax na lool ci ñi nga xam ne nii euh, dañuy nekk ci néegu sëy yi danañ bëgg ku leen di dimbale ci euh, sëy yi ba nga xam ne nii dana mën a jag bu baax a baax ndax nag ab sëy moom léegi léeg jigéen gi dana bëgg a sëy waaye ñene ci kër ga mën nañ koo bañ may jàmm joo xam ne nii rek mooy tee ñoom itam ñu mën caa toog kon rikk waay nañu fexe ba di dimbale nit ñi ñu mën di toog ci seen sëy yi insha allahu rabbi waaye itam mën a dimbale góor ñi bañ mën a yor ñoom itam seen soxna insha allahu rabbi ndax problème yi léeg-léeg moo am waaye mën na bañ a nekk ci ki nga xam ne nii rek mooy ku góor ki waaye mën na nekk ci famille bi comme li ma ko waxee woon ñu bàyyi xel bu baax a baax daal euh, problème yi nga xam ne nii mi ngi am naka lañuy ñuy mën a def ba loola mën a euh, saafaro kon ba léegi bu bëgg jokkoo gi mooy 88 628 53 53 88 628 53 53 88 628 53 53 88 628 53 53 mbokk yi incha allah rabbi bu ngeen jaaree foofu bu ngeen ñëwee ñu mën leen a seetal ku bëgg itam fiir sa gént soo ñëwee incha allah rabbi des na la ci mën a dimbale ci 88 628 53 53 88 628 53 53 su fekkee ne yow mi nga xam ne nii itam da jàpp. po yoon bëgg tukki wala bëgg a tuxu wala bëgg dem ci ab barab boo xam ne ni itam bëgg caa ginde ko ba léegi yoon wi 88 la 628 53 53 88 628 53 53 incha allah bi yoon woowa ku ci jaar bu soobee suñu baram dang ñu mën a jot soo ñëwee ñu mën laa seetal di la fàttali la bu niis du woote bu ñaa du woote waaye nag loo yor ci kër di lum néew néew da nga mën a tabbi si jotaay bi bu amee dafa war a saafaroo waaye problème du am rek continuer am na ñoo xam ne ni nag lay seen problème mooy ñoom dañuy am soxna jël seen soxna si duñ ci xajal mag duñ ci xajal rakk duñ ci xajal doomu bàjjan duñ ci xajal doomu nijaay nga xam ne soxna soo sax day dem ba nar a andi ak féewale ñoom itam ñu mujjutee seen bopp problème bu am seen diggante pour na keneen lijjanti ko day jafe. ndax danga nga leen a tëjuloon seen bunt kon loolu dañ ko bàyyi xel bu baax a baax xam naa ngir njëkkante ak waxtu wi damay tëj bunt booba waaye daal li ma ci mën a wax bala ma ko ndar képp mooy nañu dimbalante ci góor ñi yor seen soxna yi nañuy dimbalante ci jigéen ñi nekk ak seen borom kër yi nañuy dimbalante soxna yi nekk ak seen goro waaye goro yi itam nañ dimbale ñoom itam ba léegi seen goro yi am na euh, goro yoo xam ne li leen sonal mooy wujje ñoom dañuy jàppale seen goro seen wujj la <laughs> loolu moo leen sonal moo tax problème di am rek jàppane ku góor ki lum defal soxnaam rek da ko war a defal ku jigéen ko maanaam da ko war a defal yaay yaayi ku góor ki day dem ba jàppane moom day lum defal euh, ku góor ki maanaam doom ji lum defal soxna si moom si jëmm war na ko koo defal fekk di mu nga noonu déedéet am na ci lool mën na koo defal soxna si te yow mënu la koo defal ndax léeg dëkk bi day dëgër ñu xam ne yow yaay yaayam danga war di waxtaan ak moom naka la war a mën a yore soxna si waaye itam naka la war a mën a comportement ba soxna si itam di ko mën di muñal yow mi nga xam ne ne yaay nga ci kër gi da war de waxtaan ak sa goro war waxtaan ak sa doom léeg-léeg sa doom bëgg jëndal dara soxnaam waaye yow yaay tax ah man de lii su ko jëndalee sama goro sama soxna sama yaay yi day dukk bàyyee ndax xam naa ne lu ne danaa koy dégg ci kër ga tet problème yooyu rek am na ñoo xam ne ne man maa tax ñoom ñu mujj tuxu wala ñu génn dem ci beneen barab di liggéey jël seen soxna yóbbu foofa ñu naan ah diw day euh, daa takk soxna rek jàmbu yaayam fekk am na ci yooyu mëneesu koo wax ci pénc mi waaye mënees na koo wax ci biir kër gi mënees na koo waxtaanee kon loolu na ci jiitu mooy problème yi ne ci biir néeg yi balaa dem ci pénc ma nañ ko waxtaane ci biir néeg yi su saafarul ñu door koo indi ci biir kër gi kenn ku ci ne la ci sab cër nga jot ca mais ba a yër rek problème yëpp partage mu dem ci mbeddam mbokk yi 88 628 53 53 88 628 53 53 mooy bu mag jokkoo gi incha allah ku ci jaar dak ñu mën a jot mu mel ni maa ngi gis ay message waaye lu ci mën rek jaar leen ci buum ak jokkoo gi ci 88 628 53 53 nga bës 1 soo bësi 1 rek da mën a jot en incha allah rabbi 88 628 53 53 88 628 53 53 88 628 53 53 mooy yoon wi nga xam ne ni ku ci jaar rek bu soobee suñu borom dañu mën a jot di nuyu ak a siyaare bu baax a baax Cheikh Mahamadou Fadal si fële ca Touba Ndabato Serigne Malick si fële ca Touba Sam waaye di nuyu ak siyaare bu baax sama waa kër fële ca Touba Ndindi soxna Fatou Gueye Sall maa ngi lay bëri nuyu bu baax a baax di la siyaare di ñaan sunu kàddu fekk la si jàmm di nuyu ak siyaare soxna jaara waa njaboot yëpp ñëpp la leen di bëri nuyu di la siyaara sëñ Abdoul Ahad Sorong fële ca Touba Ngiraneen ca daara ja maa ngi lay bëri nuyu bu baax a baax te di la siyaara di ñaan sunu kàddu fekk la si jàmm

628 53 53 wala numéro boobu ngay gis ci ba écran bi ba léegi mën nga see jaar incha allah bi ngir jot ma ci 88 628 53 53 88 628 53 53 mu mel ne jamono bii 21 heures jot na ba tegal fanweeri simili ak ñeent ci studio Soxna Anta Ndiaye mbokk yi émission bi saa yañ ko rediffusion teg ko ci yeneen heure bu mu tee ba léegi mën ngaa woote soo wootee incha allah rabbi suñu technicien dañ la jël nga bàyyi fa sab laaj suñu def émission bu ñëwee mën cee indi ay tont waaw ci 88 628 53 53 88 628 53 53 88 628 53 53 mooy buum gi nga xam ne ni ma ngeen cee jokkoo ak ñun soo ñëwee bu fekkee da ngaa bëgg ku la firil sa gént ñu man laa firil sa gént mbokk yi eh, gént itam ba léegi ñoo xam ne yoon yi mi eh, jaar bëri na maanaam nit ki ñoo xam ne gént yi mën naa bëri waaye mën naa wuutee su fekkee ne mbokk moomu daa mel ne doon na yëglu waaye eh, mujj na génn ci 88

am loo doon waaj a dugg gént googu dikk la par rapport ak ki nga xam ne dafa tëdd rek gént la def kon gént yi mën nañoo bëre waaye mën na ñoo wuutee Assalaamy FM mbokk yi loolu waral seen rajo Assalaamy fem ci 99 point 0 indi leen seen émission Hilmul Asrar 99 point 0 Touba jërëjëf ñu ci waxtaanee lépp la soxal asrar su mbokk ñëwee ñu ànd ak moom 88 628 53 53 88 628 53 53 88 628 53 53 incha allah rabi buum gu ku ci jaar soo ñëwee dag ñu jot ñu mën laa leeral say gént su fekkee ne da bëgg dugg ci mbir bëgg xam ndax mbir yooya gën na ci yow wala gënul ci yow. ba léegi jaaral ci même numéro muy 88 628 53 53 88 628 53 53 insha allah rabbi ku jaar ci yoor woowa day soo ñëwee rek ñu jot ñu mën laa dimbale seetal la wala firi la sa gént insha allah rabbi ci 88 628 53 53 88 628 53 53 su ko defee nag ma dugg lenn ci ay gënta leeral ci waaye mbokk yitam itam mën ngeen jaar foofu ci 88 628 53 53 li doon ma neex nag mooy léeg-léeg mbokk yëkkati téléphone am ànd ak man ci wàllum tabixa bi damaa bëggoon a xam lan mooy tabixa bi a xam lan mooy bi damaa bëggoon a xam tolluwaayu yaram bi ak la cajo bi waaw euh, mbokk sama gént dafa am solo ndax gént message la buy ñëw ci nit ki waaw euh, bala ma ñëw ci gént gi ma jox la benn tegtal képp koo xam ne ni yàlla da ko nattoo mu am doom joo xam ne nii dafay def li ñuy wax toxal maanaam li jël moomut waaw di jël lu moomut Euh, wala mooy jëfandikoo loo xam ne nii lislaam da ko araamal maam daganut xam nga sàcc moom <laughs> lislaam da ko araamal su ma ne araamal mooy jël loo moomut ndax euh, fexe ba jël alali nit ki moo xam da nga koo wax wax joo xam ne nii moo tax mu jox la ko wala da koo jaay doole walla da koo sàcc yooyu yëpp nekk loo xam ne lislaam da ko bëgg lislaam moo bëgg mooy ñuy dawal yërmaande moo tax képp ko xam ne da am doom joo xam ne ni day toxal day jël wala muy jëfandikoo euh, lu mel ni am ñol la mbaa muy def li ñuy wax sax njaalo dangay ngay fexe ba bind ay yii nga xam ne moom laay waaj a indi ba mu àgg nga fekk euh, waaw mhm. da ngay da nga boo ko bindee ba pare dangay fekk kuy waaj a jàpp maanaam ku sell su neex sax moom mën na koo xam buy jàpp nga dékk ko soo dékkee ndox moom nga xam ne nii moom lay jàppee jaay soo ko dékkee bu jàppee ba pare da ngay jël njàpp mooma nga raxas ci lii ñu lay waaj wax jox ko mu jëfandikoo ko incha allah bii dana bàyyi jëf ja nga xam ne ni moom loo def waaye nag waxuma rek nga fekk am waaye waaye guy jàppale nga dégg ko déedéet ku baax la doon ku sell waaw ku baax ku sell nga dëkk am njàppam euh, def ko ci bool ba laab bu ko defee nga euh, bind tegtal bi ñi nga xam ne nii moom la ñu waaj wax muy bismillahi rahmaani rahim yaa ayuha lasina amanu udxulu fi salmi kaafatan wala tattabiu xudwaati saytaani innahu lakum xadduwan mubin waaw bismillahi rahmaani rahim ngay bind teg ci yaa ayuha lasina amanu udxulu fi salmi kaafatan wala tattabiu xudwaati saytaan innahu lakum xadduwun mubinun wala xadaynaa ilaa aadama min qablu fa nasee da cee teg ne diw doomee diw na bàyyi sàcc wala na bàyyi njaalo wala na bàyyi rey nit wala maanaam la nga bëgg mu bàyyi ko loola ngay tudd boo noppi nga الذين آمنوا وتنمن قلوبهم بسكر الله ألا بسكر الله تنمن قلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات foofu nag dafa am benn sew sew sew sew bu mooy lan وتنمن قلوبهم بسكر الله ألا بسكر الله تنمن قلوب قلوب ak قلوب الذين bokkuñ قلوب الذين آمنوا ak xuloobu allasiina xuloobul soo ko waxee àll ga da nga ko àndaale xuloobu soo ko waxee da ngaa bàyyee àll ga kon moo tax boo mënee wax alaa bi sikkarillahi tatma'innul xuluubul lasiina aamanu tatma'innul xuluubul lasiina aamanu wa aamilus saalihaati waaw tuuba lahum wa husnul mahab rabbana an yadxula xayra xam naa gudd na gudd goo xam ne su ma bëggee andi lépp man na jël lu bëri ci émission bi waaye nga topp ko wala sax ñu andi rek comme dañuy defaaw waaw wax tuuba la wa husnul mahaabi xasee rabbana an yudxilna la xayra minha inna ila rabbina ixfir ya ayuha allasina amanu taqullaha xaqa tuqaati wala tamutunna ila wa antum muslimun bismillahi rahmani rahimi teg ci yaati yuutul yallaahu juróom benni juróom-ñeenti yoon yaati wala yetti yoon nga koy def rek loola bañ a indi yaatu gi ñetti yoon nga koy def te ci yàllaahu juróom-ñeenti yoon waaw yaa dafu yaa dafi mooy itam euh, nga defaat ko juróom-ñeenti yoon yaa afisu juróom-ñeenti yoon yaa salaamu juróom-ñeenti yoon teg ci bismillahi rahmaani rahim isaa sul الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها wala boo defee isaa sursuri lar la silsilaha wa isaa sursuri lar la silsilaha wa axarjata lardu asqalaha waxaala linsaanu wala nga teg yem ci waxaala sax waxaala samaa yi waaw ansaqat wa asenat wa xaqat xam naa dafa xaw a ànd ay jat ci biir waaye eh, dana danañ fexe benn yoon lu jiitu ñuy def émission bi ñu yokk sunu technicien ndax buñ fa àggatee mu mën koo wane ci écran bi ndax ñi ñuy seetaan ci télévision bi ñoom itam ñu mën jaa bàyyi xel bu baax a baax incha allah waaw eh, bu fekkee ne lu jëm ci musiba mu wàcce ci at mi ndax fan yi wala tey jii yéen a ngi dégg xibaar boo xam ne nii waxuma Sénégal waaye àdduna neexut kenn muy li ñuy wax corona wiris muy jàngoro joojo nga xam ne dafa amoon ci àdduna bi te ñu commencé déggaat naan mu ngi fi am yàlla ñu ci yàlla musal yàlla ñu ci ak dégg dong doy képp koo xam ne nii bañ nga tawat si nga xam ne nii day wàcce ci at mi bëgg nga yàlla saa borom subhanahu wa taala musal la ca waaw ni nga def da ngay bind wala yuhudu hissuhuma uhuwa alxalliyu xasim fala wa xayru hissuhuma uhuwa arhamu rahimina muhaqibatu min bayni yadihi wa man xalfihi yëx fasoona min amrillahi inna nahnu nasana sikra wa inna lahu lahaafisoona wa hafisnaha min kulli seytaani rajimi wa hafisnaha min kulli seytaani rajimi nga teg ca mardo marda wa hafis salika taqadiru hasisul halimu in kullu nafsin lama hallayha hafisun inna batsa rabbika la sedditahum innahu huwal yubdi wa yuhiidu huwal xafooru wadooru sur si xarsil majjidi nga teg ci faxaalun lima yuridu xala atteeka xadiisu junnóodu firxawn xam naa ñi xam alxuraan buñ ñu dégg may wax lii dana jàpp ne na alxuraan ji tegaloo déedéet dafa am ci loo xam ne nii ci wàllum faju du ñëwee ne alxuraan ji tegaloo waaye day laal fee laal fee laal fii andi teg jox la xam ne asraar nag danañ xam lii ñuy wax ma tax ma taxa foofu leeral ko bala maa continué waat waaw wa samuuda bali la si na këfaroo fi taksiibin wallaahu min waraa'ihim muhiitun bal huwa qur'aanun majidun fii lawhin mahfuusin incha allah rabbi loolu rek ngay bind soo ko defee nga naan ko yàlla saa baram saa taala dana la ci dimbali waaw boo ko defee daal bu la seexee neexe sax nga naan ca sangu ca waaw naan ba pare sangu ca bu boole ci incha allah rabbi yàlla saa baram saa taala dana la musal ci musiba mi wàcce ci at mi mbokk ba léegi fàttale leen buum ak jokkoo gi mooy 88 la 628 53 53 88 628 53 53 Serigne Khadim Mbaye maa ngi koy nuyu di ko ziyaara moom itam kuy bàyyi xel jataay bi la Serigne Khadim Mbaye ñu bu baax a baax 99 point 0 ñoo ngi jéggal bu baax Serigne Kab ngi lay nuyu di la ziyaara bu baax a baax waaye di nuyu ak ziyaara soppe Seydina Ousmane di leen nuyu di leen ziyaara te di leen jox seen wàccuwaay Eh, xam naa ñu xool lenn ci ay commentaire yoo xam ne nii eh, ñëw na ca youtube ba ñu andil ci seeni borom ak tontu <coughs> ñu lu baax mbokk yi kon loolu lay andi foofu mbokk yi insha allah yi man koo jariñoo léegi nag gént dafa am solo torop ci ki gént ak la muy gént kii gént ak la muy gént kii gént nangam lan moo tax muy gént loola euh, gént dafa am ay tolluwaay léeg-léeg nit ki mën naa gént gént koo xam ne moom si jëm moom sax da cay tiit jàpp ne gént kooka lu ko yàqal fekk gént kooka nekk lu ko yàq da koy jëriñ gént itam Assalaamy FM. li tax mu mat a bàyyi xel mooy daa am ñoo xam ne nii dañ leen di wan ci gént maanaam ñoom luñ gént nekkul gént kese waaye gént guñ leen wan la loolu moo war a itam gént yi ñu war koo bàyyee xel kon su fekkee ne da ngaa gént te gént googa nga war caa mën a gindee ko gindee gindeekoo ca su boobaa itam day yéeme day des ci sam xel nga koy xalaat moo waral rek mbokk yi war caa gindeeku bu baax a baax euh, gént nag lu ci mel ni nit kiy gént lan moo tax muy gént ak lim gént lan lay tegtale comme li ma la waxoon sànq ne Euh, kii ci misaal mën naa gént ginaar ci biir këram kii mën naa gént yor ak ginaar kii mën naa gént di joxe ak ginaar kii mën naa gént ñu koy jox ginaar xam nga ba léegi génn ma ginaar de waaye ndax ñoom ñépp ñoo bokk la ñu tegtale am na ci kok mën naa génte ginaar ci biir këram muy tegtale rawaxaanam moo bëgg mu wut ginaar bàyyi ko ci biir kër gi am na ci koo xam ne ni mën naa génte ginaara ci biir këram balaa yàgg mu gis ay ginaar ci biir këram te moom du ko fa indi nga xam ne kon dañ koo wanoon ci biir gént ga am na koo xam ne ni mën naa génte yor ginaar balaa yàgg kamaataraa kem nim ko génte woon mu gisee ko noonu moom mujj yor ginaar benn da koo jànd indi war koo defar walla am ko ne ko téel ma nii léeg-léeg nit dana gént ba pare yeewoo fàtte ko léeg-léeg nit dana gént waaye yeewu du ko fàtte juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent moo waral gént am solo ci nit ki kon ka gént war na mën a jéem a gindeeku ci gént googu ci kaw bu jaare ci 88 628 53 53 88 628 53 53 88 628 53 53 incha allah seetaan même numéro yooyu itam ci baa écran bi mën ngeen cee euh, jaar sëriñ Moustapha Mbaye maa ngi lay nuyu bu baax te di la euh, ziar te di la jox sa wàccuwaay euh, di beral nuyoo ak ziara soxna Fatou Gaye Sall ñoo koy nuyu bu baax moom itam di ko ziyaara euh, di ziyaare Oustaz kamara xam naa boo waxee Oustaz Camara rek day yóbbaale mbooleem ñi sant kamara ñoom itam maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziyaara bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di wax ne bu mbokk ñëwee itam ba léegi mën nañ ko jël ci 88 628 53 53 88 628 53 53 ci seen rajo télévision Assalaamy FM ci 99 point 0 di nuyu ak CRS Cheikh Mouhamadul Mourtada Gaye borom reeteet ndaxam Touba ak gaayam ci àndal macha allah nga ngi def liggéey bu am solo waaye di beral nañu ak siyaar itam euh, New Media Touba xam naa loolu moom ña ngi ci ay liggéey yu am solo yoo xam ne bentoo incha allah bi loolu dana leer ci askan wi. waaye di nuyu ak siyaare mboolem ñoo xam ne nii ñoom itam ngi ca liggéey booba ñoo ngi leen di beral nuyoo di leen ziyaare bu baax a baax kon seen émission Hilmul Asraar ngeen mën a woote ñu firlee seen i gént wala ñu seeta leen ci 88 628 53 53 incha allah bi ba léegi sëñ Fallou Yaali ñu ngi leen nuyu dina la ziyaare sëriñ Moodu Ñang euh, PDC leer yi waaye sëñ Cerno Fay fële ca ITV e wala itam nekk caméraman waaye nekk i rajo euh, sëriñ Modou Zar ñoom ñëpp ñoo ngi leen di beral na yow bu baax a baax di la siyaara soxna Awa Touba ñoo ngi leen nuyu di la siyaara sëñ Keeba Diallo moom itam nekk fële ca Info 7 ñoo ngi koy beral na yow di ko siyaara mboolem ku ñuy bàyyi xel itam ci quatre-vingt quatre-vingt-dix-neuf point zéro ku ñuy bàyyi xel ci quatre-vingt-dix-neuf point zéro ñoo ngi lay nuyu. di la siyaara di ñaan sunu kaddu fekk leen ci jàmm ba léegi mbokk yi mën nañoo ànd ak man ci buum ci jokkoo gi ci 88 628 53 53 88 628 53 53 soxna May Sall maa ngi lay nuyu baax di la ziyaara di yaay ci man euh, di ñaan sunu kaddu fekk leen ci jàmm di nuyu ak siyaara sa waa kër ñoom ñëpp rek. mbokk yi ba léegi yéen ñi bàyyi xel rajo télévision Assalaamy FM ci 99 point 0 youtube itam man ngeen di ñu si topp incha allahu rabbi su ko defee ngeen ñëw ñu firi leen seen i gént képp koo xam ne nii am nga gént goo xam ne nii dalaa jaaxal su fekkee ne gént la wala nga bëgg a seetlu bëgg xam sa tabaxa bëgg xam sa biddiw bëgg xam yow yow yan xeeti sarax mooy sarax yi nga xam ne nii moo gën ci yow incha allah rabbi mën ngaa jaar ci 88 628 53 53 yaakaar ji faral di tas lan la dañ la liggéey wala xeetu cat la wala rab la wala wala yooyu incha allah rabbi ba léegi mën ngeen jaar ci 88 628 53 53 soo ñëwee nga bés 1 soo ko defee nga mën maa jot. en di jaajëfal baax a baax sama technicien Serigne Abiou caam ci wàllum xarala gi waaye mboolem ñoom feggool ci wàllum technique bi sëñ Babacar Diagne sëñ Sanna bi yaay sëñ Saalihu Njaay Maawul raxma ak ña ko jàppale ñëpp rek ba léegi bu mu jokkoo gi loolu la kon 88 la 628 53 53 88 la 628 53 53 88 628 53 53 di wax ne nag di daal bu mu jokkoo gaa ngi noonu man ngeen cee jaar insha allahu rabbi ku ñëw rek ñu xoolal la lan mooy tabixa bi lan mooy biddiw bi lan mooy tolluwaay bi waaye maa ngi nuyu ak siyaara bu baax a baax waa diwaanu Saalihina ci njiit euh, sëriñ Cheikh Mbacke ibnu sëriñ Saliou moom mooy suñu njiit maa ngi leen di nuyu ak mbooleem ñenn ca liggéey booba maa ngi leen di bere nuyu di leen siyaara sëriñ Cheikh Touba xam naa ku bëgg lim da am ñoo bàyyi sëñ ma sàmbaloo ñoom ñëpp soxna Ngoni soxna Bintu euh, ñoom ñëpp rek su ma tuddee kenn day yóbbaale ñëpp ñoom ñëpp maa ngi leen di bëri na yow di leen saara mu mel ñoom itam ña am bis bu am solo boo xam ne ñu ngi ko dëgmal yàlla ci yàlla yóbbu jàmm muy ab séance générale boo xam ne ni chaque année dañ koy def muy le sept sore incha allah rabbi mel na ñoom sax xam naa war nañoo fexe rajo télévision Assalaamy dalala incha allah bi ndax ñu gën a yaatal bu baax a baax liggéey booba waaye ñoo xam ne Euh, ñu ngi koy waajal ci kanam Serigne Cheikh Mbacke ibnu Serigne Salihu muy siyaare bu am solo kon ñu ngi leen nuyu di leen siyaare di ñaan sunu kàddu fekk leen ci jàmm. yéen a ngi déglu. mbokk yi ba léegi mën ngeen a jaar ci 88 628 53 53 ngeen bàyyi xel rajo Assalaamiya FM ci 99 point 0 Touba ak li ko wër soo xawee sori nga dem ci YouTube ba nga bind Assalaamiya TV incha allah bi man ñoo zeetaan kon yow mi bëgg ku firé sa gént wala ku la seetal jaara ci 88 628 53 53 incha allah bi boo ñëwee ñu mën laa dimbale ci lu ni mel waaye jërëjëf waa diwaanu zaalihina maa ngi leen di bëri nuyu bu baax a baax ta di leen jaara yéen itam di ko ci yéen ay ñaan ngeen doolee ñaan bu baax a baax kër gi yàlla saa borom sa taala gën ko yëkkati bu baax a baax ci doole Serigne Saliou kon mbokk yi yoon waa nga noonu muy seen émission xelmul asrar ngeen koy am fii ci rajo télévision Assalaamy FM ci 99 point 0 mbokk itam mën a ànd ak man ci téléphone bi ci 88 628 53 53 88 628 53 53 incha allah ku jaar foofu boo ñëwee dag ñu mën a jot ñu mën la joyante leeralal la gént yooyu nga xam ne nii rek bëgg nga ku ca dimbale incha allah rabbi mbokk yi kon gént laa doon junj léegi doon ci andi ay leeral di wax ne gént day euh, dafa am ñu ko ragal lool lool lool lool da gis sax koo xam ne naan man damaa gént nangam ñu naan ko ah gént kay baaxul seet teet teet waaw nee nañ ko gént baaxul de waaye yow bu ñëw ci yow nga ne message baaxul. missage bii baaxul waaw ah, xam naa sëñ Babacar tey ku ko message soon léegi mu xool kontam gis ci deux cent mille du wax ne message baaxut waaw ah, kan mooy wax missage baaxut mooy kay kañ message wax ko lu ko neexul mu naan message bi moom ki ko awaay daa juum walla sax ka nekk ak soxnaam ba pare am ku koy tegal ndëgg sërëx misaas ko wax ko loo xam ne nii day jaxase digganteem ak soxnaam waaw kooku mën na wax ne misaas boo baaxut waaye ka yónnee sañ Habib benn missage mu xool ko gis cinq cent mille ah waaye message boobu baax na waay baax na ci moom de waaw xanaa <laughs> bu fekkee ne dafa juum nanguwaat ko moom missage booba du baax ci moom waaw jërëjëf sëñ Modou Sarr maa ngi lay rëyu euh, di la siyaare te di la jox sa wàccuwaay ci quatre-vingt-dix-neuf fay zéro euh, xam naa yow moom ku la yónni woon dara <laughs> retiré waat ko danañ leen métti baa ci lool ndax xam naa ne poche mel ni jamono bi woyof na. 98 88 ah, la 628 53 53 88 628 53 53 jërëjëf soxna Njawa Caam wala soxna Ndawa waaw soxna Nja Ndawa maa ngi lay di la ziyaara bu baax a baax soxna Ndawa Caam maa ngi lay na yu te di la ziyaara di la ñaanal jàmm ji sax te ànd ak de nuyuwaale sëñ Moustapha Thiam maa ngi koy nuyu di ko ziara moom itam di ñaan sunu kaddu fekk ko ci jàmm waaye ba léegi mbokk yi ànd na ñun ci 99 point 0 rajo Assalaamy FM seen émission Hilmul Asrar firi gént ak la ci aju incha allah rabbi rek man ngeen a di woote bu soobee sunu borom ñu mën leen a dimbale bu baax a baax euh, mu mel ni tam ñi topp jotaay yu bari nag commentaire yi <laughs> commencé na waaye waa commune météo Xelcom Xéwal yi ñu si nekk ci góor groupe whatsapp bi maa ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax a baax maa ngi cee gis ay benn benn yoo xam ne ñoom itam ñu ngay commentaire jërëjëf yal na leen yàlla saa sa saa defal jàmm ci sax te ànd ak tawféex ci doole Sëriñ Saliou di nuyu ak ziare nag euh, waa kër Sëriñ Fallou Galass la fa la ca. Touba Daaru Salaam maa ngi leen di beral nuyoo bu baax a baax te di leen ziara te di leen joxaat seen wàccuwaay jërëjëf sëriñ Saalihu Kebe waaw jërëjëf sëriñ Saalihu Kebe ci topp gi ak bàyyi xel gi ñoo ngi lay nuyu di la ziara tey ñaan sunu kàddu fekk la ci jàmm kon mbokk yi seen émission Hilmul Asraar ba léegi man ngeen a ànd ak ñun ci 88 628 53 53 88 628 53 53 88 628 53 53 jërëjëf Baye Cheikh Sylla maa ngi lay nuyu di la ziare bu baax a baax di jël sama nuyu ak sama ziar teg ko sa loxo nga nuyul ñu mbooleem soxna yi nga xam ne ñoo ci kër gi ku ci mel ne soxna Madiba Sylla ku ci mel ne soxna Ndiaaya Sylla waaye ku ci mel ni soxna Faati gay ku ci mel ne soxna Ami Zilla euh, ku ci mel ne soxna Balla Silla ku ci mel ni soxna Astu Silla ak sëriñ Mbàkki Silla ak sëriñ Seexuna maa ngi leen di beral na yow te di leen siyaara tey ñaan sama kàddu fekk leen ci jàmm kon Baye Cheikh jotaal ma sama nuyoo ci waa kër gi bu fekkee sax ñoom jiituwuñ la ci <laughs> kon ñoom itam yéen ñuy bàyyi xel ci 99 point 0 foofu ci diwaanu Daaru Salaam ak la ko wër waaye itam mbokk yi ñuy bàyyi xel ca YouTube ba yéen maa ngi leen di beral na yow bu baax a baax di leen siyaara di ñaan kàdd gu fekke leen ci jàmm waaye itam euh, maa ngi beral na yow ak siyaara xarit yi ak wëllër yi ak am di jàmm yi nga xam ne nii ñooy ne ci rajo bi mboolem ko ne ci rajo te am sab soppe sab xarit sa am di jàmm

mooy bu mag jokkoo gi su ko defee mbokk yi incha allah mën nañoo jaar foofu ñu mën leen dimbale ci wàllam li nga xam ne nii moom nañu seetlu tabexa bi la biddiw bi la sarax yi nga xam ne nii moo gën ci ñoom ñu bëgg ci am ak leerlu lu ci matu doon mën nañoo jaar ci 88 628 53 53 88 628 53 53 jërëjëf soxna Anta Seck taalibi sëñ Abdou Samad maa ngi lay nuyu te di la ziare foofu ca ñaari pënu di ñaan sunu kàddu fekk ci jàmm ba léegi mbokk yi euh, rajo Assalaamy FM ci seron seen émission Hilmul Asrar muy émission boo xam ne nii des ci waxtaane xam-xam waaye des ci firi gént incha allah rabi di ci leer ay gént ak i sarax ak la caaju kon mbokk yi ba léegi rek man ngeen ànd ak man ci 88 la 628 53 53 incha allah rabbi su ngeen ñëwee ñu mën leen a dimbale jërëjëf soxna Anta Seck ci lu ni mel maa ngi nuyu sa waa kër bu baax a baax tey ñaan sama kàddu fekk leen ci jàmm kon ba léegi mbokk yi bu mag jokkoo gi mooy 88 628 53 53 jërëjëf soxna Soda foofu ci diwaanu Kaolack Ndangaan ñoo ngi lay nuyu di la ziara te di ñaan sunu kàddu fekk la si jàmm ci 99 point 0 ci diwaanu Touba ak li ko wër waaye ca YouTube ba Assalaamy TV ci ngeen ñuy toppee kon ba léegi mbokk yi ñu jëlaat keneen ci 88 628 53 53 88 628 53 53 su ko defee yéen ñam ay gént te bëgg ku leen ci dimbalee man ngeen a jaar foofu waaye yow mi nga xam ne tam da ngaa bëgg. ku la seetaan incha allah bi mën ngaa jaar foofu ci 99 point 0 mooy fréquence bi waaye 88 628 53 53 jërëjëf soxna Mari Wadda maa ngi lay nuyu yow itam di la ziara yaag sa waa kër tey ñaan sama kàddu fekk la si jàmm ci 99 point 0 rajo Asalaam FM mbokk yi mën ngeen a continuer di woote ñu mën leen seetal man leen a firil seeni i gént incha allah bi man leen a jàppale ci. yi nga xam ne rek moo leen intéressé bu ngeen jaaree ci 88 628 53 53 da ngeen ñu mën a jot incha allah su ngeen ñëwee sëñ Abibu Caam ubbi leen yoon wi ngeen mën a ànd ak ñun mbokk yi gént kon la ma ca waxoon daal di ñëwaat waaw wala dama doon ci junj te àggut moo tax man la junj message la bu am solo boo xam ne nii doomu aadama yi war nañ caa mën a bàyyi xel waaye bul wax rek gént baaxul déedéet gént gi baaxul nangu naa ko waaye gént baaxul moom déedéet man nanguma lool nangu naa nag nga jaar ci 88 628 53 53 nga ne ma sayid lii moo tax ma ne la gént baaxul xam nga dama la wax ne la gént baax na ndax dalay xalal yoon wi nga war a jaar waaw gént baax na lan moo tax mu baax message la buy ñëw ci yow di la leeral di la xibaar di la xamal waaw su ma waxoon xibaar rek ma doy sëkk mais man nga wax xibaar am ñoo xam ne nii duñu xam lan mooy xibaar ga waaye xamal ga day am solo moo waral seen rajo Assalaamy FM ci 99 point 0 amal leen émission xelmul asraar di leen ci dimbale di leen ci gide bariwaa na ñoo xam ne nag da ngay def émission ba pare ñu naan la bëgg naa dugg waaye waaye waaw waaye moom foo ko ne <laughs> am na lu tax waaw waaye waaye lan da ngay jënd kër da lay jaral da jaral mais man su ma jeexal émission ku ma waroon fi firil ma génn wala dama bëgg seetlu da nga may fay waaw te ñooñu ñi nga xam ne sax duñ diglu rajo bi.

nga ne man bëgguma jàll ndax dama siiw mën na la wooteel nga ne jël ma ci suuf suñu technicien jël ci suuf incha allah bi bindal laaj bi andil ñu ko ñu tonto la ci xanaa sutura foofu la mën a fekk baax waaw wooteel rek yow bàyyi fa sawtur nag dama bëgg ku ma wax ma tabeexa bi ak biddiw bi boo ko defee moom mu bind SMS léegi wala bind message wala bind ko ci kiin ñëw jox ñu ma toog fii di la leeral la ngay dégg di wax ngay xam ne yow laay waxal te bañ a jaa sawturu ndax nag am na si ñooñ léeg-léeg dañuy bëgg seetlu mais xañ na tur wa fa mu toll moo tax bëgguñ di woote ci rajo ñu leen xamal waaw kon ba léegi mën ngeen jaar ci 88 la 628 53 53 88 628 53 53 xam naa sax léegi tey ñu yëkkati li nga xam ne ni mooy jotaa bi waaye teew rek mbokk yi mën ngeen wéy di ànd ñun incha allah maa ngi gis message yi waaye ñu baal ma yéen ñi nga xam ne ni yéen a may yónnee message ay xamu vocal ak la caaju mënumaa liir déedéet loo ma bind mën naa koo liir loo ma bind mën naa koo liir waaye déglu ay vocal déedéet olof Njaay day faral di léeba naan tëgg tama ànduta ak wokk wokkatu di tëgg bëgg wokkatu waaw déedéet ànduñ kon yow muy wala yéen ñi may yónni ay vocal euh, mënumaa déglu seen vocal yi da ngeen may bind message wala ngeen woote rek lii moo fi ne kon ma bàyyi sama technicien mu may ma tuuti image incha allah rabbi ak son ma ñëw àndata yéen nag may leen benn secret bala ñoo yëkkati jotaay bi ci 88 628 53 53. ku jëm ci yàlla na la ñaan soo doonu tur di yaa boole booti xarnu bi sëñ bamba yaa di kerkeraan ku jëm ci yàlla na la ñaan soo doonu tur di yaa boole booti xarnu bi def la keg bu lay siyaare allo salaamaaleykum ku baax maa ngi lay siyaare naka yitte yi allo ku baax dégloo ma sa sa téléphone te bañ maa déglu ci rajo bi kookoo rëcc na waaye dana mën a ñëwaat ci 88 628 53 53 88 628 53 53 88 628 53 53 mu mel ni mbokk mooma rëcc na waaye mën naa ñëwaat ci 88 628 53 53 88 628 53 53 incha allah bi bu ñëwaatee ñu jël ko 88 la 628 53 53 mooy bu mu jokkoo gi 88. 628 53 53 ma bàyyi ngi kitiwaat soo insha allah rabbi ca doqi góor ña nuy sanaa ñépp ne nu tallali baat ci xarnu bi mu jàll toog ca gàngu naay buur yàlla rangu koy medaay diiwaan ba jox la seeni gaay keroog nga te xarnu bi billaahi bambaadim keleng keleng moo jàpp seytaan welañ ba tër ko ren di ca gabon ñu bisi wax ko xam ne si billahi bamba dim keleng moo jàpp seytaan baarakallah jërëjëf sëñ abibu ci liggéey bu am solo boobu mbokk yi mën ngeen a jaar fi mbokk mi jaaroon léegi ci 88 628 53 53 88 628 53 53 soo ñëwee nga bés un insha allah rabbi da ñu mën a jot en direct ñu mën laa firil sa gént su fekkee gént nga gént gu la jaaxal bu ci sarax ware itam ñu leeralal la ko euh, mbokk itam yow mi bëgg leerlu bëgg xam lan moo nekk sa poids mystique ba léegi 88 la 628 53 53 88

su fekkee da nga bëgg xam lan mooy sa tabihan lan mooy sa biddiw lan mooy sa poids mystique wala yow sa jëmm itam yenn xeetu sarax ndax gis nga sarax dafa am solo lool lool lool ci nit ki moo xam sarax yi gën ci moom mu koy faral di génni di ko joxe te yàlla rek a tax ndax bu fekkee ne xamoo sa sarax da ngay làmbatu rek di def léegi léegi mën nga sarax sarax boo xam ne nii rawaxaan bi kat mën na ko bañ jubut su boobaa mën na laa yàq leneen loolu te ñu bàyyi ko xel bu baax par rapport ki nga xam ne day sarax rek te yàlla tax moo tax sarax lu am solo la waaye ki koy def war naa bàyyi xel ne allo ah, asalaamaaleykum mbokk ak seegul waaye bu accès ñu mën koo jël ci vingt 628 53 53

soxna si nga nekkal itam ndax gën ci yow walla gënul ci yow ndax sëy bi am na ak mujj wala amut ak mujj barab bi ma bëgg dem sanc fa dëkk fa yan xeetu ñaan mooy ñaan yoo xam ne ni su ma ko fa defee yàlla sama baram bi subhaanahu wa taala man na maa dimbale ba loola am ak tawféex loola itam lu mat a bàyyee xel la su fekkee ne dangaa jóg bëgg dëkk ci barab boo xam ne mii rab moo fa ne te defoo fa ñaan soo fa demee pour nga toog fa dana jafe ci yow moo tax yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ne ñaan mooy ngànnaayul jullit kon rek waaye nañu jël ñaan di ko ngànnaayoo waxul xërëm de xërëm ak xërëm lu déedéet waxu ko de ñaan mooy ngànnaayul jullit moo xam dangay ngay ñaanal sa bopp wala da dem ci koo xam ne nii jàpp nga ne moo la tane nga dem ci moom di sakko ci moom ay ñaan waaw da ngaa dem ci koo xam ne jàpp nga ne moo la tane ngay sakko ci moom ay ñaan moo waral ñaan lu am solo la ndax dana dimbaliwaat nit ki kon buum gi mooy 88 628. 53 53 88 628 53 53 mbokk sama foo nekk rek mën ngaa yëkkati sa téléphone eh, su fekkee da nga yónnee crédit ngir bëgg woote rekk waaye bul wax ne nañ ko def ligne bul wax ne nañ ko def ligne waaye jaay ma di nga ko koy wax walla boo demee nala jaay jaay di soo ñëwee na nga mën a woote incha allah bi nga jot sa mbokk sa xarit sayidna Ousmane bu sa sëriñ Saaliw soo ñëwee man la xoolal bu baax a baax man laa leeralal lan moo nekk tabixa bi lan moo nekk biddiw bi gis nga ki ma gën a soxla ki ma gën a soxla mooy ki nga xam ne moom dafa dem ba am xelam jaxasoo ndax lan dañ naan ko tay bu tayee kii ne ko sa tabixa ndox la bu subaa kenn ko suuf nga bu naa subaa kenn ko ndox nga bu ëllëgee kenn ko sawara nga waaw euh, léeg-léeg loola nit ki ñoo xam ne tabixam du tuxu mukk ci lulul ci lulul dafa sensé aw turam juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yi tombul dara aw turam te nit léeg-léeg mën nga sensé tur ba pare sa tabexa ñëwaat fa mu nekkoon waaw ndax loolu moom euh, lu ñu xool rek ba xam tabixa bi lan la euh, gannaaw ba nga xamee tabixa bi bi itam ban biddiw mooy sa biddiw maanaam biddiw xam ko dafa am solo ci nit ki mu ngi mel ni nit ki am carte d'identité ba nga amee pièce de carte d'identité mais yow sa carte d'identité woo ko tey boo wat doon danaa la est-ce que moo nga ko de wala kii di yaakaar naa man la est-ce que man la xam nga loolu du wax même bu du dara yow war a xam lan moo nekk sa tabaxa lan moo nekk sa biddiw waaye yu mujj gis nga couleur couleur xam ngeen couleur euh, maanaam bu bu bu la jàpp ne yàlla dafa am jot rek ñëw sàkk àdduna rek wàcce doomu aadama nii lenn lu ci ne étape la par étape étape. ndax yàlla saa borom subhaanahu wa taala ba mu waxee ne lépp lu mu bind doomu aadama moo ko ca gënal waaye yi mu ci da koo teral ba pare jox doomu aadama ay jumtukaay yoo xam ne nii mën na di ci liggéeyee di am di ci jàngee di xam te yàlla jumtukaay yim defal doomu aadama benn bu mu ci perte rek yëg ni perte na ko bi gën bi gën a bi gën a yéem mooy tey nit ki am nopp di dégg mu jékki-jékki noppam déggatul mais pas ñàkk dégg sax waaye na ci aw gunóor dugg rek wala am na ci dugg jàmm ji day day jeex am dana waddeet jug fam toog jéem koo dindi ji waaw boo yéexee sax ay yuuxu mën na caa topp xoolal ma lu ne sama nopp daal di yuuxu lan ma a loolu mooy jàmm ya nga xam ne nii commencé nga koo ñàkk ma waral xéewal yi ñu suñu borom subhanahu wa di jox nañ ko ci sant kon yàlla bu ni dee may ñaan di may ngeen may sant ma leen dool am lu te teral gi mu teral doomu aadama ni ma la ko waxee léegi jox ko lépp loo xam ne ni dana ko soxla ba pare yi mu ca jox ko ay gët jox koy nopp jox koy tànk jox kom xel mu mën a xalaate jox kom xel jox ko lépp loo xam ne dana ko soxla yéen a mais yimu ca yàlla dara encadré ba noppi nag. asalaamaaleykum ah, ubbil la ay buntu wërsëg yoo xam ne yow bunt yii boo si jaaree yàlla mën na la caa dimbale. gis nga yàlla dafa nekk buur boo xam ne dafa bëgg ku koy yëg yëg yëg ni mooma yëg ni moom waaye yow tey bu sa wërsëg di dox yaa ngi xëy am junni léeg-léeg nga xëy am junni juróomi téeméer maanaam xëy am 5000 xëy am 7500 xëy am 10 000 ah man de samay mbir alhamdulilah dox na. saay te nga wut la ñaanal wala te nga eh, fàttali ko yàlla sa borom subhanahu man saay yàlla fàttiwuma man yàlla mooy xéewale ah ma ngay naagu mais bis day ñëw mu ñàkk man nag mu commencé xalaat man dal kan moom war a ñaanal man na la war a def ba sama wërs ubbeeku man daanaa xëy di am cinq mille man daanaa xëy di am sept mille cinq cent man daanaa xëy di am dix mille man daanaa xëy di am cent mille man daanaa xëy di am un million mais léegi mënatuma ko am lan la yow yàlla du la nattu da nga jàpp yàlla day dëkk ci di la nakk rek yow yaay kan ba yàlla du la nattu xool la ba xam yaay kan xool la ba xam nag ngay jéem a def ba xar-xar yooyu nga génn ca mais doo wax na naa toog rek yëg yàlla yëg ni yàlla moo fi ne moo xam da ngay julli di yàlla sa borom subhanahu wa taala teggi la tolof tolof yooyu wala da ngay dem ci koo xam ne jàpp nga ne moo la tane mbiri dëgër këkk nag waaw gis nga ki gën a sonn mooy kiñ boole ak rab yàlla xam ne loolu kiñ boole ak rab rab wa di ko yàqal nga xam ne loo ko jox rab wa taxaw temm ci yàqal ko kooku moom xeex bu ma sëkkale laaj mooy tax loola topp ko mën ko bàyyi waaw kon ba léegi euh, mbokk yi bu mag jokkoo gi mooy 88 628 53 53 88 628 53 53 88 la 628 53 53 waaw 88 628 53 53 mooy bu mag jokkoo gi bala ma yëkkati jotaay bu mel ni doon naa am lu ma leen dikk mhm. ku bëgg nit ñi soppala lu am solo la gis nga ci cadre sikkar salallahu ala muhammadin salallahu ala muhammadin salallahu ala muhammadin lu gàtt la mais ku koy sikkar rawat na 70 muy kun kenn du la bañ ñépp lay bëgg kenn rek dong dong dong moo lay bañ muy ab naa feq muy ab naa feq fekk waaye mbokk yi nañ leen di julli ci yéen sallallahu alayhi wasallam leen def ay istixfaar nañ leen di sikkar walaf su laa ilaha illallah muhammad rasulullah mbokk yi sikkar dafa am fu muy yóbbu nit ah, xëy yoo sakuru sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin allahuma muhammadin allahuma salli ala sayidina ci wasallim allahuma salli ala muhammadin wasallim bismillahi rahmaani rahimi bismillahi rahmaani rahimi bismillahi rahmaani rahimi bismillahi di def basmala léeg-léeg nga ne basmala ndeysaan gis koo xam ne nii day mel ne ka ma xam ci ruq ba basmala basmala basmala basmala basmala basmala basmala basmala basmala basmala basmala man tey def naa nangi mi junne basmala déedéet defoo dara basmala mooy bismillahi rahmaani rahimi bismillahi rahmaani rahimi nga xam ne kay jàng baax sax balaa def dara moom lañ koy daral mu ni baa siin miim su demee tuuti ñu ne ko sansel ko ni ni ngi ko jàngee su boobaa du waxati baa siin miim waaye lan lay wax bi mi bi mi su demee tudd ñu ne ko boole ko mu ni bisimilah bisimilah googa nag di tekki lan bisimilah ji tuddul tur yàlla laay tàmbalee samay wax arahmaane yàlla may ajiram bépp mbindeef ci àdduna arahimi kay aji ku ko soob ci àllaaxira waaw moo tax bu ñu waxee defal basmala bisimilahi rahmaani rahimi bisimilahi rahmaani rahimi ñu ne la dee ko sikkar cent onze dee ko sikkar 313 dee ko sikkar 785 7 dee ko sikkar 787 dee ko sikkar 625 baax na alhamdulilah waaw kon ñu fàttali numéro téléphone bi ngir ñi ñuy door dab ci 88 <coughs> ñu jégalu 88 628 53 53 88 628 53 53 88 628 53 53 di nuyu ak siyaar nag bu baax a baax soppe Seydina Ousmane yi moo xam kilifa yi la moo xam ñi nga xam ne ni ay tu tànk lañ soxna yi yaay faal yi ñenn ñu si ne maa ngi leen fekk fa ngeen ne di leen nuyu di leen siyaar te di leen jox seen wàccuwaay rawatina kilifa yi nga xam ne nii saa yu émission bi tàmbalee dañuy bàyyi seen fréquence ci 99 point 0 kilifa yi nga xam ne ñoo ngi koy bàyyee xel ci lu fees ak ci lu nëbb ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu di leen siyaara ñi nga xam ne ni dañu yor seeni kurus di defal ay dog Seydina Ousmane moom itam ngir njariñ yoo xam ne nii mu ngi koy waxtaanee bëgg yàlla yàggal ko fi ñoom itam maa ngi leen di nuyu di leen siyaara di wax ne ñaan yooyu yàlla na ko yàlla saa borom subhanahu wa taala dollee defal waaye ñi nga xam ne ni fu ñu toog itam ñu ngi ñaanal kër gi di asalaamiya yàlla saa gën koo yëkkati gën koo dooleel ñoom itam yal na leen yàlla saa baram subhaanahu wa taala defal jàmm ju sax te ànd ak tawféex waaye ñoom itam maa ngi leen bëral nayu di leen siyaar di ñaan sama kàddu fekk leen ci jàmm mbokk yi euh, istixfaar dafa am solo julli ci yéen sallallahu alayhi wa sallam dafa am solo waaye koo xam ne ne dana xëy suba ba ngoon lum lekk lum naan lum sol fu mu toog nelaw lii rek mooy problème asalaamaaleykum. nanu ko saar yàlla yàlla na ko siyaar. allo. waaw. ku baax maa ngi lay siyaare. allo. mbokk maa ngi dégg bu fekkee yaa may dégg. allo. Euh, di ñaan ñi nga xam ne ni dañuy woowatee. su fekkee dañoo jege télé dañuy wàññi seen télé bi parce que léeg-léeg mën na am déclasse maanaam bu fekkee rek may seetaan ci YouTube bi xam nga am na ñoo xam ne dañuy yor télé boo xam ne nii ci wifi ci lay dox léegi ñoom la ñu bëgg yëkkati seen téléphone di ma woo di diglu la may wax ci télévision bi non du sotti da ngay jël sa commande nga wàññ sa télévision. jël sa téléphone bi ngay wootee di ci déglu ak man da ngay mel ni kuy jokkoo téléphone mooy waral suñu diggante man ak yow mën a leer su fekkee ne rajo bi la dangay wàññi sa rajo bi di ma digloo téléphone ci gàttal foo mëntu nekk di woote ak loo mëntu digloo wala ngay seetaan loola wàññil loola walla nga def déplacement di ma digloo ak sa téléphone su ko defee dana leer ci man leer ci yow ma xam li ngay laaj kon buum ngi mooy 88 628 53 53 88 628 53 53 su ñëwee nga bës 1 1 ngay bës 1 soo bësee 1 nga mën maa jot en direct incha allah. su la neex nga bés deux bàyyee foofa message waaw ah, kon 88 la mooy yoon wi 628 53 53 88 628 53 53 ci seen émission xelmul asraar ngeen ci ànd ak seen mbokk seen xarit Seydina Ousmane Sourang bu Serigne Saliou borom cabine médicale xel kom xewal di ànd ak fii ci rajo télévision Assalaamy tous les lundis 20 jàpp léeg-léeg ñu dem sax ba 23h30 moo xam kem nañu ko jot gi maye waaye incha allah bi lu yàggul dara rek bu soobee suñu borom bëcc gi danañ xool lenn ci ay bis yoo xam ne nii danañ ci mën a ànd ak yéen bu ko defee itam ngeen di man di woote su fekkee ne émission bi dañ koo tegaat yow woote rek déglu nga émission bi wooteel suñu techniciens yi ñu fi buñ la jëlee. danañ jël sa laaj pointé ko su ma ñëwee def émission incha allah bi ñu mën ma ko jox mu andi ci ay leer kon ma jël beneen bokk ci 88. allo allo maa ngi siyaare bu baax. naka yi. allo allo allo. moom ñëw na maa ngi koy dégg waaye moom dégguma 88 628 53 53 88 628 euh, 53 53 88 628 53 53 sëñ Abibu euh, maa ngi lay nuyu baax di la ziara fële ci Touba Sam ak mboolam ñe nekk Sam te di ñu bàyyi xel sëriñ Malick si maa ngi lay nuyu di la ziara ak sa waa kër yi ñëpp rek tey ñaan sama kàddu fekkee leen ci jàmm.

88 628 53 53 incha allah rabbi mooy bu mag jokkoo gi 88 628 53 53 88 628 53 53 seen émission Hilmul Asrar fii ci rajo télévision Assalaamy FM ci 99 point 0 ngeen mën ñu bàyyi xel ci YouTube bi xel dem ci Oustaz Diaw Oustaz Cheikhouna Diaw Cheikhouna Diaw maa ngi lay nuyu di la siyaara mooy Oustaz Firi di ko nuyu ak siyaara di nuyu waa këram Baye Diop maa ngi lay nuyu di la ziara soxna si te maa ngi koy nuyu soxna su mag si ak su ndaw si ñoom ñëpp maa ngi leen di bere nuyu bu baax te di la uh, siyaara tey ñaan sama kàddu fekk leen ci jàmm ak mboolem kuy yeewoo Touba Ndamatou ñoom ñëpp maa ngi leen di bere nuyu di la siyaara tey ñaan kàddu gi fekk leen ci jàmm. kon ba léegi mbokk yi ñu jël keneen ci 88 628 53 53.

seen émission xelmul asraar fii ci rajo télévision Assalaamy FM ci 99 point 0 bu ko defee ñu bëgg ku leen firil seen gént wala ñu bëgg ku leen xoolal lan mooy tabixa bi lan mooy biddiw bi poids mystique bi yow ya yan xeeti sarax mooy sarax yi nga xam ne nii moo gën ci yow nga war koo génne incha allah jaaral ci 88 628 53 53 88 628 53 53 ci fàttali nag bonus ak buuñaa du woote waaye loo yor ci crédit da nga mën a woote ndax dafa bëri ñu tàmm yor ligne di woote moo tax ma leen di leerala la lu ni mel kon ba léegi mën ngeen a yëkkati seen ab téléphone jaar ci 88 628 53 53 bu ngeen ñëwee incha allah bi ñu mën leen a jot di were yoo ak euh, ziyaare bu baax a baax euh, sëñ Souleymane maa ngi lay nuyu di la ziyaare sëñ Souleymane jóob maa ngi lay nuyu di la ziyaare wala sëñ Souleymane nan sëñ Souleymane bu Sidi Diop <laughs> sëñ Souleymane taakal maa ngi lay nuyu di la ziyaare te ñaan kaddu gi fekk la si jàmm di nuyu ak ziyaare bu baax itam mbooleem ñi nga xam ne nii dañuy jàppale ci liggéey bi ci beneen côté ba muy waa xel ko mate ak ñu nekk ci groupe whatsapp ba maa ngi leen di nuyu ñoom itam di leen di ñaan sama kàddu fekk leen ci jàmm di leen ñaanal jàmm ju sax te ànd ak tawféex ba léegi mën nañoo ànd ak meneen mbokk ci 88. 628 53 53 88 628 53 53 seen rajo Assalaamy FM ci 99 point 0 ci diwaanu Touba ak li ko wër di nuyu kenn ci man soxna Marie Sagna euh, maa ngi lay nuyu te di la siyaara bu baax di ñaan yàlla sa baram subhaana wa taala doole laa defal jàmm ju sax te ànd ak tawféex ñu ngi koy nuyu di ko siyaara bu baax a baax. waaye di nuyu ak a itam e, samay rakk fala ca diwaanu Bakel ak la ko wër maa ngi leen di nuyu te di leen ziyaara muy ku ci mel ni Sëriñ Saalihu Zurang mën nañoo bàyyi xel ci yuti bi e, maa ngi koy nuyu di ko ziyaara Sëriñ Mouhamadan Sorong moom itam maa koy nuyu di ko ziyaara waaye soxna Fatou Sorong fii ci Touba Ndaam euh, maa ngi koy nuyu di ko siyaara sama xel dem ci kenn ci man nag muy bàyyi Abdou Guèye di waajur ci sëñ Mamour Guèye sëñ Mamour Anta Sali mooy itam kuy bàyyi xel jataay bi la bàyyi Abdou Guèye maa ngi lay nuyu di la siyaara yàgg sa waa kër sama doomu bàyyi maa ngi leen di bëri nañoo di la siyaara waaw wat na rakka ji si sas ci man rëkk

kenn ci man itam sëriñ Asan Sàll di nijaay ci man nekk fële ca Touba nit di maa ngi koy nuyu di ko ziyaara xel dem ci sëriñ Moxtaar Kamara moom tam di kenn ci man maa ngi koy nuyu di ko ziyaare ak waa këram soxna Jaw soxna Màggat mag leen di nuyu te di leen ziyaare ak mboolem koo xam ne ni yaa ngi yeewoo nit ñi sama xel dem ci koo xam ne nag ku tudd ni sa xel dem ci moom muy borom makaarimul axlaax sëñ Abdul Karim Mbakke ak ay taalibeem ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu di leen siyaara mbokk yi 88 la 628 53 53 bu mbokk yi yëgloo ñu ànd ak moom incha allah rabbi jël ko 88 628 53 53 di bëre nuyoo ak a siyaara bu baax sama doomu baay yi ñu may te maa ngi leen nuyu di leen ziyaare sëñ Moxtaar Sorong sëñ Abdoulaat sëñ Malick soxna Mariam ñun ñëpp rek bàyyiwuma kenn di leen nuyu di leen bu baax a baax te ñaan sama kàddu fekk leen ci jàmm xam naa kon mu mel ni waxtu wa may signalé ma ngay xotti jëm si jeex xam naa incha allah rabbi rek kon santaat gërëm mboolem ko doon xel rajo bi ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu di leen ziyaare Olof Njaay day faral di wax naan xalangu dajul suuf li duuf ci nag wi tam xaja doorul ci cilli kon maa ngi leen di santaat di leen gërëm ci bàyyi xel gi waxtu wane saa su ne insha allahu rabbi di leen dig daje waaw nañ bàyyi wax di leen jox dig daje déedéet li nga téegoon mënoo ko joxe waaw waaye mën ngaa dige maa ngi leen di dig daje maa ngi leen di dig daje ba altine ci waxtu wi su ko defee tam mën ngeen ñoo jot ci 77 861 53 25 77 861 53 25 77 861 53 25 incha allah rabbi ku bëgg itam ñu dalal la ci émission bi wala nga am ay communiqué wala publicité am ba léegi itam ubbil na la suñu buntu même numéro bi boo ci wootee bu soobee suñu borom des na la orienté teg la ci yoon. seen mbokk la seen xarit Seydina Ousmane nekkoon ci wàllu waxkaay gi sëñ Abibu Caam nekkoon ci wàllum xarala gi askan wi nekkoon ci déglu bi ak ci seetaan bi kon incha allah rabbi ba beneen yoon ci beneen émission wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu gor su la waaje duutuus doy nga takkaayal xel bii def na la ngay sunu takkaay di sun